Lahat fay mu ngi dëkk Pikine Wakinaan 3 maa ngi commencé ñëw depuis 2007 maa ngi jàngee ñëw pikin fa laa commencé ñëw Daamine rafet rafetlu seen teewaay tey ci élégance couture yàlla nag dafa dogal moom euh, ma liggéey ci benn atelier bi ñuy wax atelier Lamfal 3 ans 2007 ba 2010 2010 laa jógee foofu ñëw fii nekk Touba Sandaga waaw mu nekk parcours bu metti nag ma jaar ci lu metti waaw ndax euh, nit ki moom li ngay def boo ko bëggee il faut nga tarbiyoo ko te dama tarbiyoo métier bi ba yàlla dogal ma yegg si fii tey balaa nekk boroom élégance couture waaw ma jaar ci làmb faal mu neex mu yaatu mu avancé loolu jëm kanam mu def ci man lu bari nag ci laa jóge foofu ñëw fii Fallou indi ma fii Touba Sandaga may jàng métier tarbiyaw ko it gëm sama métier ba yàlla dogal tey ma egg si fii ma egg. dëgg la nag ñëw bu ñu dul defaraat amul parce que nit juste waaye nag yaakaar naa ne ñoom sax bu ñëwoon fii tey ñu jàngalaat leen ñëw dëgg la nag métier bi géej la kenn xamul lépp waaye fii dañuy ñëw ci qualité te boo xoolee ni ñuy liggéey rek xam ne ñun ci qualité lañuy dox ndax li ñuy ñëw dañ koy càmbar bu wax en même temps dañ ko jàng ba pare tarbiyewu ko lépp looñ tegal ci ñaw ñu def maa ngi tudd Caroline Gomis. ñu may surnommé Lina création parce que moom laa tuddee sama entreprise. Euh, lan mooy suñu différence je me dis tour dong la dañoo ëpp peut tour. ci tur yi la rekk affaire yi ak njëkk ñu siiw dong parce que ñoom au fait liggéeyatuñu seen tur la ñuy jaay. bon man la Max Max bon Omar Ndaw ñu gën mooy si mais Max moo gën siiw Max Couture nekk Parcelles Assainies commencé naa ñëw depuis bon 2000 depuis 2000 maa ngi ñëw waaw. man tailleur complet la veste pantalon robe soirée. Taïbas Marinière Thiaye Jamput Grand Boubou demi saison Obasanjo lépp laay ñëw ko bon xam nga couture moom toujours day dépend ci environnement bi nga nekk mooy environnement bi nga nekk quoi bu bu lañ nekk centre ville la peut être ñoom bon centre ville xam nga ak ak banlieue bi du nekk benn du nekk benn peut être foofu ñoom bon mën nga am ñoom dañuy am par exemple seen benn. investissement par exemple investissement bu ay million nga investir atelier def ko mu luxe def climatisé def ay fauteuils yu un million xam nga amul la léegi déjà bu client ñëwee rek loolu dañ di frappé. mais ñoom tey da ngay gis nit ne la si diw laa ñawee boo tijjee ñaw bi ci biir ñaw bi des fois sax du am du am sax suffilage te loolu yëpp day joué si ñaw ñaw dafa war a am finition te am na tailleur yu bëri yoo xamante ne seen ñaw amul finition. ci bokkul safi xam nga ñun. suñu liggéey saa su ne rek dañuy jox liggéey bi àqam duñu xool ne lii 300 lay jar lii mu junni lay jar xaaral ma jënd 300 pour réserver non non lay jar junni la ñuy jënd def ko ci ñaw bi parce que ñun noonu la ñuy liggéeyee ñaw dafa am qualité am quantité tey boo duggee Mali da ngay gis ku ñaw tey baas ñëw rek dëxëñ mu taxaw nga jël garniture tey ko ci ba muy taax loolu du liggéey. man du ma xamal tailleur dafa am trois qualités tailleur dafa am tailleur civil am Bernina ak tailleur complet bon tailleur civil xam lu muy ñaw marinière taille basse anango maanaam comme tenue day ñaw comme tenue traditionnelle lay ñaw koo wooy tailleur civil tailleur Bernina mooy tailleur buy daamine tailleur buy daamine moom moom moom moom ñawul moom mënul ñaw dessin la xam nga comprendre tailleur ñaw moom des tailleur Bernina moom dessin lay def dessin day dessin day dessin kese lay def ko dessin kooku mënul ñëw kooku mënul dagg mënul ñëw dessin lay def teer complet nag mooy koo xam ni bon moom mënul ñàkk si si si si atelier moom day dagg day dagg day ñëw leen rek kese la lu def muy bëri naa dessin parce que ñëw qualité la du quantité quoi parce que ñëw bëri na te wutewul quoi xam nga bi moom da ngay xool à chaque fois lu koy satisfaire rek moo ci am solo liggéey dafa am lu mu laaj da ngay tisi bii rek ñu ma jox mën naa kaa ñëw ba pare tu am daraay garniture te yow mi def garniture yaa koy yow yow mi deful garniture yaay dàkkale ko def garniture ñëw du garniture ñi da ngay toog fi ngay toog nga créer popeline bi sax dama koy room ma gis ko mu rafet ma créer ko ci ñëw. parce que ñëw tamit dafa laaj benn temps bi dafa laaj xam-xam dafa laaj nga jàng ko tarbiye ko man li ngay def boo toogee dagg xam li ngay ñëw lan la mooy tax ki koy sol bu ko solee ñëw bi du defarmawu ci moom 10 000 jëm kaw. bu dee vax bu dee jesner quinze mil jëm kaw jëm quinze mille ba cinquante mille waaw